li ma leen di wax mooy lii doom ji war a donn baayam fii ak mu ngi ci ndaw ak lu ko alal ji leew lépp du wuti dara ak jaam ñi ko yore tey sàmm alalam ñoo ko yilif ba jamono ji ko baayam àppaloon mat nun itam naka noonu laata nuy mat aadaay àdduna ñoo nu nootoon ba def nu ni ay jaam waaye bi app bi yàlla tëraloon matee yónni na doomam mu juddoo ci jigéen ci biir yoonu musaa ngir jot ni yoon wi nootoon ndax yàlla jàpp nu ni ay doomam ginnaaw doom yàlla ngeen nag yàlla yónnee na xelu doomam ci sunu xol mu koy wooye nii aba maanaam baay noonu dootuloo jaam doom nga te ndegam doom nga yàlla jagleel na la cër ci xéewal yi mu dencal ay doomam bu jëkk bi ngeen xamagul yàlla yéen a ngi doon jaamu yeneen yu ñu daan bokkaaleel yàlla waaye léegi nag bi ngeen xamee yàlla walla boog bi leen yàlla xamee nan ngeen mën a def bay delluwaat ci aaday àddina aada yooyee ñàkk doole te ñàkk njariñ lu tax ngeen bëgg ñu nootaat leen yéen ngi fonk bés yi màggal yi ak at yi sama xel dalul ci yéen ngir ragal sama coono ci yéen neen mbokk yi dama leen di ñaan ngeen mel ni man ndax man itam fekk si naa leen ci seen xalaat tooñu leen ma xam ngeen ni sama wopp moo taxoon ma yëgal leen xabaar bu baax bi coono gileen sama wopp tegoon taxul ngeen bañ ma taxul ngeen seexlu ma waaye teeru ngeen ma ni bu ngeen doon teeru malaakaam yàlla walla yéesu Kirist waaw fan la seen mbég jaar ndax seedeel naa leen ne su ngeen ko mënoon kon luqi seeni bët jox ma ndax dëgg gi ma leen wax moo tax ngeen def ma ab noon nit ñu leen di farle seen mébét baaxul dañu leen a bëgg a tàggale ak nun ngir ngeen far ak ñoom farle baax na bu àndee ak mébét mu baax waaye bu sama jëmm rekk tax ngeen koy def sama doom yi yéen a tax ma dellu ci mitiit ni kuy matu ba keroog jikkoy kirist di mat ci yéen léegi bëggoon naa nekk ci seen biir ngir mën a jubbanti sama kàddu ndaxte xamatuma ni may doxale ak yéen yéen ñi bëgg topp yoon wi xanaa xamuleen li yoonu musaa wi wax mbind mi nee na Ibrahima am na ñaari doom ki jaam bi jur ak ki gor jur doomu jaam bi judd na ni bépp doom waaye doom ji mu am ak jabaram juddu na ci kaw digu yàlla loolu nag am na lu muy misaal ñaari jigéen ñi dañoo biti ñaari kóllëre benn bi di ajara mooy wone kóllëre gi yàlla fasoon ca tundu sinaay yi ay jaam lay jur ajara moomu mooy tundu sinaay yi wi nekk ci réewi arab yi te mooy misaalu dëkku yerusalem bi fi nekk tey ndaxte moom ak ay doomam yépp ay jaam lañu waaye Yerusalem ga ca kaw mooy gor moom mooy sunu ndey ndaxte mbind mi nee na bégal yow jigéen di dul jur te musula am doom réyal te bànneexu yow mi musula xam coonob mat ndax jigéen ji ñu falewul moo gën a jaboot ki nekk ak jëkkëram yéen mbokk yi yéenay doom yi ñu dige waaye doom ji juddoo ni bépp doom dafa daan sonal doom ji juddoo ci doole xelum yàlla te loolu mooy law ba léegi lu ci mbind mi wax nag nee na dàqal jaam bi ak doomam ndaxte doomu jaam bi warula bokk cër ak doomu gor si ci ndonoo kon nag mbokk yi nun dunu doomi jaam ay doomi gor lañu